maa ngi di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jël nuyoo bi di nga teg si loxo Khalifa Ababacar mi nga xam ni mooy président conseil départemental bu ma ko si tegee dinaa nuyu département bi yëpp. maa ngi nuyu sama xarit sama mag le maire de Mbane muy Dembel yàlla moo ñu boole boole bu nga xam ni. du politique du dara ba politique dugg si yàlla boole ñu boole bu yàgg mu nekk sama mag ma koy jàppale mu may jàppale biir ak biti ñu tase nag di jàppale président Macky Sall tey kontaan nañu ci organisation bi kontaan nañu ci initiative bi nga xam ni Dembélé jël na ko. tey mu ngi dugg si li nga xam ni mooy politique président de la république mooy jàppale askan bi jege askan bi donc boo gisee mu jël suufu mbaam dajale ko jox delloo ko askan bi jàppale leen ba ñu bay loolu na président bëgg a dembel yow yaa ngi si yaa ngi si yoon bi kon continuer si yoon boobu gën a jege sa askan bi kon maa ngi nuyu waa mbaan yëpp di wax ni

président Macky Sall jege na askan bi ubbeeku na bëgg na réew mi bëgg na jàppale jigéen ñi te mu ngi leen di jàppale mu ngi jàppale ndaw yi kon tey bis na ba nga xam ne fii si Bardiane département Dagana APR Dagana féetlu na digganteem ak président Macky Sall ñu ngi si gannaawam tey ñu ngi si gannaawam ak gannaaw ëllëg di ko jàppale si vision si gis-gisam pour Sénégal pour tous donc tey. Diembel monsieur le maire maa ngi lay nuyuwaat xam naa sa yéene ndax dañuy waxtaan xam naa li nga bëggal mbaan gisuloo dara lépp loo gis pour askan bi rek yaa ngi ciy daw bëgguloo dara pour sa bopp man xam naa si lu bëri bëri bëri bëri donc maa ngi lay ñaanal mission bi nga bi nga teg bi nga taxaw yàlla bay la nga eggale ka ci wàllu jigéen yi si wàllu ndaw yi si paysans yi ak sàmmkat yëpp yàlla dimbale na ba loolu mu ànd donc baa ngi wax mbaan wax ju du bëre mais baa ngi ñaan ñun ñëpp ñu am ñu nekk benn topp si gannaaw président Macky Sall maa ngi leen di ñaan ñun ñëpp ñu nekk benn topp si gannaaw président Macky Sall ouverture bu mu def ba indi Oumar Sarr indi ku mel na yokk la mouvance présidentielle duñ si gërëm di si sant le président Macky Sall loolu mooy dooleel parti loolu mooy dooleel mouvance présidentielle ndax ñaari ëtt rek moo am ëttu gouvernement bi ëttu mouvance présidentielle ak ëttu opposition bi donc lépp la nga xam ni xëj nañ ko fële indi ko day tax ñu gën a am doole donc ñu ngi gërëm di sant le président Macky Sall si li nga xam ni def na ko ubbeeku na wàcce na boppam xam na ni moo ëppoon doole ak 58 pour cent mais teewoon mu wàcce boppam di leen ñëw leen ñu ànd Sénégal ndax Sénégal moo ma ñor kon ñu leen Sénégal moo ñu ñor ñu ngi tey fettali suñu diggante ak président Macky Sall asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa